prix yi moom méttiwul méttiwul ji nii mën a wax mooy pomme de moo xaw a cher tuuti mais soble moom vraiment actuellement disponible na ci marché bi deuxième bi ci mooy prix bi méttiwul yenn métti yi ndax daanaka li ëpp ci marché bi tey jii soble bi li muy jar ci sac de vingt cinq bi mille la li gën a cher six mille sept cent cinquante six mille sept cent cinquante boo koy xool mooy deux cent soixante dix par kilo détail bi dina dem ba trois cent trois cent cinquante affaire yooyu kon yaakaar naa loolu mu wax di yàlla méttiwul ci côté pomme de terre bi moo xaw a cher parce que pomme de terre bi tax mooy benn nit moom moo ko am di ko jaay ci prix yoo xamante ne day xaw a metti te fi muy jóge itam dafa sori moo tax bu njëkk see ci marché bi day dem ba onze mille onze mille cinq cent ba douze mille sac de vingt cinq kilos bi léegi nag bu dee douze mille la mooy nekk quatre cent quatre vingt quelque